ñoo lay juumloo ci ay info yuy foree feneen ñëw jaxasel la ko ñu rejeté kii ñu ñëw wax kii ñeneen ñu waaye am na ko dem naa ci Dakar gi TV mais nee na sax mujj nañ ko accepté ne nangam nag jaajëf sama gars yi peace and love le combat yi le combat continue bu ñu nangu lii de nañ lànk buñ ko nangoo billahi buñ ko nangoo ñàkk wallaay bu ñu nangoo ni Sonko demul ci election yi koo leen fi indi du dem koo leen fi indi du dem maa la wax loolu koo leen fi indi du dem waxumat koo leen fi indi du dem bu ñu nangu loolu nañ bañ Sonko nee na bu demul ay élection du fi am jàmm du fi am salaam du fi am nañ continuer loolu bu ñu nangu loolu gars yi bu ñu wut lu yomb bu ñu wut lu sedd nañ jàmmaarloog waa ji sinon dañuy ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barakaatu peace and love le combat continue guys